day wax li ñuy tudde an nushoosu gët firi ak foñ rek di ki ci alquran wallaati taxaafuuna nushoosahunna fahiruhunna wahjuruhunna fil madaajihi wadribuhunna an nushoosu mooy soxna si ñàkk dégg ndigal ñàkk dégg ndigal nag mën na am ci bu bëggee jotee ak moom mu bañ di ko aaye boppam mën naa amee ci jékki-jékki di génn ci lu dul ndigalum jëm foo xam ne neexu ko bëggul mu dem fa mën naa amee ci li ko yàlla sant moom jigéen ji muy wari gar mu di ko bañ di ki nangu wuta jàpp mbaa julli mbaa xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne daa war ci jëm ju ne mën naa amee itam ci soxnaam si ji tëj buntam du nangu mu jàll si bu bëggee jàll si du ko may mu jàll si rawante na nag soxnaam si di ñàkk sàmm boppam mbaa muy ñàkk sàmm alalu jëkkëram ji su boobaa nag jëkkër ji dañ koy tegaleel yetti biir ne ko tegale ko njëkkelee tegcalee tegcalee ba ci jëkk mooy ndegam àttekat bi yëgu ko mbaa àttekat ba mbaa kilifa gi yëg na ko waaye yaakaar na ni moom mën na koo lijjanti la muy njëkk njëkk a def mooy waar ko xamal ko dégg ndigal ni mu amee njëriñ tey ak ëllëg ak ñàkk dégg ndigal ni mu amee wàññeen tey ak ëllëg loolu daal la koy njëkk a ñëwante waar ko ci ba xam nu muy def su ko waaree waar loolu amu ca benn njëriñ mu jàmb ko ca tëddukaay ba mooy bañ a bokk ak moom tëdd ci benn lal am na ñu ne day bokk ak moom ab lal ba noppi nag wan ko gannaaw du nangu mu jege ko loolu itam mën na caa yàgg lu tolloog weer mbaa lu ko ëpp waaye nag bu mu àgg ci yeenti weer su fekkee jàmb googee ca tëddukaay ya amu ca benn njëriñ dóor moo ca topp dana dagan bu dóor ko dóor boo xam ne du dama ab yax du ñaawal deru yaram ci kaw nag mu yaakaar ne dóor ya dana ci am njëriñ su jàppee dóor du am njëriñ moom du ko sañ a dóor bu ko wóoroon ne it bu àggoon ci dam ak yaxam mbaa ñaawal deru yaramam moom mu def li mu bëgg du tax nag ko it mu sañ koo dóor dóor yu mel noonu nga xam ne day dam ak yax mbaa day ñaawal deru yaram su ko defee lu mel noonu rek soxna sa sañ naa fayu ba noppi koy bëtiku ñu may ko baatam mu dem bu ko jëkkër ji dóoroon nag wax ne dama ko doon yar rek ni ma ko yoon diggale soxna si ne damaa bañ rek di ma dënge waaye def ma lu may dóore kon bu jëkkër ji doonee waay ju baax suñ jàpp ne moom du def loolu waxi jëkkër ja la ñuy nangu waaye bu dul loolu nag la jigéen ji wax la ñuy gëm moom la ñuy jàpp kon ñu seetlu foofu ne bu ñu nee góor gi sañ naa dóor soxnaam itam dóor ga nekkut lu war mbaa lu ñu sopp dagan dong lay doon ci kaw nag dóoree dañu ëpp te mu jàpp ne dóoree dana ci am njëriñ waar ga nag ba xam dana teretu gannaawam de ak jàmm ko ca tëddukaay ba moom bu ca yaakaarul njëriñ itam du tee rek ñu ne ko def ko waaye dóor yi moom daa mën a indi ngaañ moo tax bala ko sañ a def da ci yaakaar ne bu ko defee mu am njëriñ te it mu yem rek ni ñu ko waxee bañ a àgg ci dam ak yax mbaa ñaawal deru yaram mooy nag bu fekkoon ne góor gi dafa def soxnaam lu mu ko wërta def mel ne dóor ko dóor yoo xam ne amul dara lu koy waral ci yoon mbaa mu di ko ngaañ ni nit ki di ko móoloo ko rëbboo ko teg baat yi ñaaw ñaaw te loolu ay seere seere na ko mbaa moom jëkkër ji ci boppam wax na ci làmmiñam ne def naa ko kon àttekat bi day woo jëkkër jooju njëkk koo waar waar ko ne ko soxna ab nawle la yàlla leen boole nga ko war a yërëm sàmm si digganteeg moom di yàlla wax ko wax daal wax ju baax loolu la àttekat bi njëkkee ci jëkkër ji mel noonu su waaruwut mu daal di koy xupp ne ko ah boo dellu gannaaw nag naal def nangam daal koy tëkkoo tëkku su tëkku gu am njëriñ nag dóore ca topp say boobu mu dóor ko ci kaw nag mu jàpp ni dóoree dana am njëriñ waaye bu fekkee ne yaakaarul ne dóoree dina ci am njëriñ say boobu mu bàyyi loolu lépp nag ci kaw soxna si bëggu te tàggoog jëkkëram jooju waaye ndegam jëkkër ji lor na ko nii moom bu bëggee tàggoog moom rek daal di koy bàyyi mu tàggoog moom muy mag mu mën a yëg boppam muy mag mu mënta yëg boppam muy gonee ci yam ndegam moom daal jëkkër jee ko tooñe noonu doon ci sax genn tooñ gi wér la rek gu saxe noonu bu ko neexee génn ca sëy ba bu bëggute génn ca sëy ba nag bëgg a toog la ñu wax ne na àttekat bi jaar ak jëkkër ji foofee njëkk ko waar su waaruut bu xupp ko bu baax bu xupp yi am njëriñ te dóor ga am njëriñ mu dóor ko lu ñu ne àttekat bee koy def nag daa mel ne bu dee barab boo xam ne àttekat jullit amu fa kilifa ga fa nekk bu fekkee bu taxawee ca loolee jàmm rek ci njëkk mujj ca say boo kilifa googee taxaw ca loola dañu wax ne nag jëkkër ji aaye soxnaam ci dem di féexlu ca barabu féexlukaay yaag lu demee noonu moom duñ ko jàppee lor ba tey it su bañee julli mu dóor ko dóor yoo xam ne ëpput ba tey loolu de su ko jàppee lor waaye nag xosee dóor dóor yu ëpp moom doonte sax bañ a jullee tax it ñu jàpp ne wàcc na yoon woo moom jëkkër ji mu ne nag bu fekkee ne jigéen ji day jàmbar rek jëkkëram waaye mënu caa taxawal yenn seere mënu koo saxal ci genn wet mbaa sax jëkkër ji ci boppam mooy jàmbar rek soxna si waaye moom it noonu mënu koo saxal ci benn wet mënu taxawal seere mbaa ñoom ñëpp daal ñoo bokk kenn ku ne di jàmbat moroomam rek te nag àttekat bi mbaa kilifa ga nekk foofu daal mënta xam moom ci dëgg-dëgg kan mooy tooñ moroom ma ak ndax kii jàmbat li muy jàmbat am naam amut mu ne kon bu fekkee fa jigéen ja nekkoon nekkutoon ak gaa yu baax yoo xam ne luy wax ñu mën caa jàpp na ko àttekat bi yóbbu ci ay dëkkandoo yoo xam ne ñu baax lañu ñu dëgg lañu xëy na bu jigéen ji nekkee foofu moom jëkkëram daañu mujj xam ba xam kan moo ci tooñ moroom mi ak lu xew seen diggante dëgg-dëgg su fekkee nag naka jekk moom ñooñ dëkkaloon ñu baax lañu waaye taxul nag ñu mën a wax dara ci lu xew seen diggante mbaa gannaaw bi nga xamee ne àttekat bi mbaa kilifa ga boole na góor gi jigéen ji dëkkal leen ci diggante ñu baax waaye taxul rek la ko ci jaaxaloon deñ ba léegi xamuñu kan mooy tooñ morooma kon nañ seet kenn ci mbokki jigéen ja ak kenn ca mbokki jëkkër ja ñu yebal leen ñoom ñu dem seet ba xam du am dëgg-dëgg diggante jëkkër jooju ak jabar jooju ngir jëfe li suñu boroom ne wa in xiftum shiqaaqa baynihima fabhatu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha bu ñu mënee am kenn ci mbokki jigéen ja ak kenn ci mbokki jëkkër ja kon duñu wut ay jaamur ndax dañuy jàpp ne seeni jegeñaale ñooy gën a xam seeni mbir te it xëy na ñoom ñi xëccoo seeni mbokk lijjanti leen moo leen di gënal ab jaambur lijjanti leen xëy na luñ mëntoon wax ab jaambur ca la nekkoon seen diggante ñu mën koo wax seeni mbokk bu ñu mënta am nag ñaar ñu demee noonu mbokkum ku góor ka ak mbokkum ku jigéen ka ñu door a wut nag ñaari jaambur yu maandu la ci gën nag mooy ñaari jaambur yu maandu yooyee dëkk ñoom boole ca ñu ne dañuy sart ci ñaar ñoom ñu ñu yebal ñeenti sart bu njëkk ba mooy maandu kenn ku nekk ñoom ñaar na maandu bu wér a wér ndax daanaka dañ leen di àtteloo te àttekat daa war a maandu ñaareel ba mooy góor rek lañu yebal ñaar ñu yebal ñëpp la nekk góor ñu yebalee jigéen bu baax ñetteel mooy kañu yebal na rafet nu muy soppax ni ko ci alal bu doonee ak moosóor boo xam ne mëntoo yore alal kenn du ko yebal da ko ñeenteel nag mooy kañ yebal na xam lii ñu ko yebal mu ci lislaam wax du ñu ne na dégg bunt fiq yëpp waaye bunt bii moom na ko xam bu baax ñaar ñooñu lañu war a njëkk a def mooy jéem a defare seen diggante te alxuraan dane in yurida islaahan yuwaffiqillaahu baynahuma kon lañu war a njëkk a jéem rek mooy defare leen ba ñu déggoo buñ jéemee defare defare mutt nag sa yeboo ñu fase maanaam tàggale leen ci tudd nag menn pase duñ tudd ñaar mbaa ñett ndax buñ demoon bëgg a àndaat tudd gi parce que yu bari day indi jafe-jafe rek ndax buñ tudd ñett itam buñ bëggoon a àndaat faaw jëkkat dafay jaar kon bu léegee passé doon te ñàkk ndax mënuñoo defare si diggante nañ tudd menn passé rek buñ tuddee menn passé nag moom faaw passé moom ay wéy bu ca jëkkër jaag jabar ji àndutoon it buñ ca mën dara atikat da nga xam ne sax moo leen yabaloon ñu dem di defari mbaa kilifa ga nga xam ne moo leen yabaloon sax du mën a dindi passé moomee doonte sax jëkkër ak jabar ji ñoo seetoon ñaar ñee ba doyloo leen ñu seet seet ne ku yebu tàggal leen ci passé loolaay yooyu ñoom duñ ca mën dara bi waaxidatin nag mooy ci menn passé mi nga dégg ñu tudd ko léegi duñ tudd ñaari passé mbaa lu ko ëpp dañu wax rek menn doy na buñ tuddoon lu mat ñaari passé mbaa ñett itam menn rek kay war menn rek la ñu nangu ci yoon yaari ndaw yi yebaloon ñuy defare diggante jëkkër jaak jabar ja la ne suñu seetee ba passé mënta ñàkk nañ seet ba xam ndax jigéen ja war naa fay alal wala warta fay alal buñ gisee ne jëkkër ji ci boppam moo dëng moo mayut soxna si jàmm kon buñ dee fase soxna sa di joxe dara ci alal buñ gisee nag ni soxna si ci boppam moo dëng moo mayut jëkkëram ji jàmm kon buñ dee fase itam dañ ko wax ne ko joxeel nangam ci alal ñu koy tudde ak sunni ko wala boog ndegam soxna si ci boppam moom moo dëng te góor gi mënees naa waxtaan ak moom kon nañu waxtaan ak góor gi ne ko dañoo bëgg rek dënkaat la ko nga gën koo jàpp bañ koo topp ci ni mu mel ndax góor moo war a tane jigéen su fekkee ne bañ ko waxee noonee doon na ku neex a waxal ñu bàyyi passé na bañ a fase bu ne nag mënatuma muñ dara dara kon na ko jigéen ji fay alal joojee ñu wax te sëy bi jeex ndax fi nga toll mooy seet nañ seet waaye jigéen ji ci boppam mooy tooñ rek waaye góor gi defu ko dara bu ñu seetee nag jëkkër ja jabar ji kenn ku ci ne day tooñ rek moroom ma la leen tee juboo mën a ànd daal du ci kenn rek ci ñoom ñaar ci ñoom ñaar ñëpp la kon ñi ëpp ci sëriñ si dañu ne nañu leen tàggale kenn ku ne dem te jigéen ca du fay alal ndax ndegam kenn ku ne day ñaawal jëm ci moroom ma muy su wax kenn ne ko yaatoon bàyyi ko ci des nañu leen tàggale kenn ku ne dem te soxna sa du fay dara ñu ëpp woon ci sëriñ si ñoo waxoon ne bu leen dee tàggale ci yooyu jamono jigéen ji du fay dara mu ne nag am na ñu ne buñ seetee ne kat jigéen ja fay góor ga alal maslaa la li war a seet maslaa moomee daal di fayloo jigéen ja alal joojee ñu gën a néew nag ñoo wax loolu waaye mel na ni seen wax jooju mat naa jàpp ndax bu fekkee góor ga dafan ci jigéen jooje alal ju bëree bëri dëgg lu sax kenn jubu ci ñoom ñaar ku ne yaa ngi tooñ sa morom waaye kee moo jox woon alal ju bari joojee te tàggu gi mënta ñàkk ñu wax soxna sa ne ko kon jox ko nangam ci alal ñoom war naa mën a am ndax kenn ku ne mu ngi sëgg ci morom ma di ko lor ñu yemoo ci lorante gi te kenn ak moo defoon alal ju bari joojee waxoon na ne ñaar ñañ doyloo ba yebal leen ñuy seet li xew ci diggante jëkkër ja ak jabar ja ñu ngi seet ba dogu ci rek loolu laay war a wéy nga xam ne àttekat bi du ko mën a teb bi doonte sax wute naag na mu gise ci àtteem waaye du tee rek ñaar ñu yebaloon ñëwaat ba ci àttekat bi wax ko lañu dogu àttekat bi wax ne dogal naa li ngeen dogal àtte naa li ngeen àtte mu wane ànd gu seeni kàddu àndoo di àttekat bi moom mënta teb bi la ñaar ñooñuy wax ba tey it bu doon yaari kilifa ya ñu ñëw wax leen la ñu dogu it yaari kilifa yi duñ mën a teb bi li nga xam ne ci lañ dogu ñoom ñaar jëkkër ja ak jabar ja te ñàkk déggoo bu leen neexee ñu seet kenn koo xam ne bokk nañ doyloo ko mu ñëw defare seen diggante seet la ca war waaye nag kenn kookee day matale sart ya nga weesu woon léegi sart ya moo doon bil xadaalati wa dukoorati wa rushti wal fiqhi bi dalik mu ne itam attekat bi sañ naa seet kenn rek koo xam ne doyloo na ko yebal ko mu dem defare seen diggante ndegam kooku jàmbur la ci ñoom ñaar ñëpp am na ñu ne itam bu fekkee di jàmbur waaye moom lim jegee benn la mel ni day seen dool bàyyi rek wala mu seen bàyyi bu ndaw attekat bi kon mën na koo yebal moom kenn kookee ba tey ñaari kilifa muy kilifa jabar ja ak kilifa jëkkër ja mën nañoo seet kenn ku doy rek yebal ko ne ko demal seet seen diggante waaye rek na kooku nekk ab jàmbur mbaa boog nam jege ñoom ñaar ñëpp di benn jëkkër ja ak jabar ja la ne fekkee ne ñoo tànnaloon seen bopp ñaar ñu maan ne leen seet leen suñu diggante kon ñaar ñooñee buñ tàmbalee seet diggante ba te seet ba noppeegut ba ñu dogu ci dara dara bu leen neexee ñu génn ca daal di wax ñaar ñooñu ne leen loo leen seetoon kat doyloo leen waaye danga koo far bàyyi waaye nag buñ àggoon ci seet ba gis ba dogu ci dara moom loola ñu dogu ñoom ñaar ñi muy jëkkër jabar ji duñ ca mën a génn doon ci sax lañ dogu neexu leen it waaye dem nañ ba seet ba dogu moom faaw loola yooyu ñaar ñi doon seet diggante jëkkër ji jabar ji duñ dogoo ci ne sëy bi mënta baaxati faaw dañ koy tas waaye kenn ka dane jigéen ji day fay alal kenn ka ne du joxe dara mu ne kon bu jigéen ji nangoo fay loolee kenn ko wax ñu daal di fase mu fay loola bu fekkee dane nag man duma fay dara góor gi di wax ne faaw dañ may fay la koy wax kon seen diggante jeexagut dañuy mel ne rek dañ tàmbaleegut a seet seen diggante kon nañu dellu seetaat seet bu yees ba xam fu ñu dogu